salut les amis ziar naa leen bu baax a baax dal leen ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey la lundi 3 mai 2021 samedi bi ñu génn moo nekkoon premier mai nekkoon fête du travail ñoo ngi ñaanal bépp liggéeykat yàlla yokku xam-xam bi yokk mën-mën yi defal ñu réussite ci bépp projet boo xamante ni ñu ngi koy euh, sumb ñi nga xamante ni aussi amaguñu xëy ñoo ngi ñaan yàlla may leen ko mu jig leen ñu mën a servir Sénégal mais aussi jëriñ seen njaboot yépp alors tey nag moo nekk épisode 6 ba léegi ñoo ngi ci saison 5 bi ñu fas yéene waxtaan encore une fois ci beneen sujet bu am solo maanaam l'internet des objets déjà lan mooy objet connecté lan mooy internet des objets ban njëriñ moo am ci connecté objet yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu wër. yan technologie ak yan mbir la ñu war a boole ba tax ñu mën a wax internet de objets mais aussi yan jafe-jafe la ràññee ak l' internet des objets alors pour waxtaan ci loolu yëpp nag dañu siy ànd ak suñu invité tey bi maanaam Mamadou jàlloo nekk fab manager euh, ci Orange Digital Center nekk aussi fondateur bloc bi ñuy wax bloc techno Mamadou ziar nañu la. maa ngi lay ziar Ibrahima di nuyu ñuy déglu. Euh, di la remercier si invitation bi nga def euh, si sa émission wolof rek macha émission bi muy déglu la di ko encourager kontaan nañ si trop. merci. merci beaucoup c'est gentil alors j'espère que euh, comme li mu doon tooñee fan yee passé ci sama épisode yi passé Pape Sega Euh, moom moo créé woon benn voice bot euh, donc du coup ma la ko wax ne ko yow est-ce que est-ce yaay wax directement ak ñun quoi est-ce que envoyé woon ñu benn voice bot mais man dama lay laajte yow est-ce que eh, fi nga toog est-ce que amul ay objets connectés yu bëri yu la wër déjà. <laughs> ñaata objets connectés ñoo la wër actuellement. Euh, actuellement ah waaw ma nekk xam naa war naa <laughs> oh sûrement sax am na yoo xam ne compté woo ko quoi. <laughs> alors je pense que tey aujourd'hui di nga di nga partager ak ñun nag. Euh, mhm. secret boobu noonu. Mhm. Euh, nekk ci vivre avec objet connecté yooyu noonu. ñu mun cee wax tubaab ba nga xamante ni. Mhm. bépp Sénégalais dina mun a comprendre exactement lan mooy objet connecté te ñu koy def aussi ci kàllaama wolof ba nga xamante ni waaw ñëpp dinañ ko dinañ ko mën a jot. est-ce que pare nga ñu dem dugg ci objet connecté yi. bisimilah alors ñu dem directement kon ci suñu sujet bi maanaam l'internet des objets à la conquête de notre quotidien alors avec euh, nouvelle technologie Euh, gis nañu ko ne nit ñi le plus souvent ñoom ñooy interagir ak matériel yi lu ci mel ni téléphone portable yi ordinateur yi ak yeneen ak yeneen di produire ay données yu bari nag suñuy utiliser xarala yu bees yooyu euh, pour seeni soxla alors léegi si jamono bi ñu toll nii nag boroom xam-xam yu bari euh, boroom xam-xam yi bëgg nañu dem fu gën a sori je pense bëgg nañ dem fu gën a gën gën a sori maanaam fexe ba bépp objet boo xamante ni moo ñu jege rek ñu mun ko connecté. montre yi dàll yi yére yi auto connecté velo connecté kër connecté ba sax dañuy wax ville connecté maanaam dëkk boo xamante ni dañ ko connecté yépp quoi alors ça c'est grave quoi ça c'est beneen level je pense alors loolu moo tax nag tey jii Euh, ñu invité Mamadou Diallo pour mu waxtaan ak ñun euh, ci ci lool noonu naka la mun a nekkee naka la mun a possible ko quoi bañ mën a connecté ak lépp ci àdduna bi quoi tu vois alors Mamadou avant sax ñu dugg ci euh, internet des objets déjà lan mooy objet connecté. waaw objet connecté mën nañ wax ni d'abord bu ñu xool li defar mot bi li ko li ko formé am na objet ak connecté. donc objet mun nañ wax ne lu nit defar la lu nit defar par exemple mën na nekk euh, table table nit da ko defar mën na nekk butéel mën na nekk frigo mhm. mën na nekk lépp lu nit defar daal mën nañ ko considérer comme objet donc connecté mën nañ considérer euh, benn ob euh, loo xam ne mën na waxtaan ak keneen mën nañ jàpp ne loolu mooy mooy lu connecté loo xam ne mën na discuté keneen fii objet yi pas si nit ñi bu ñu waxee nit ñi du ñu ko jàppee mais si objet yi mun nañ jël ne lépp loo xam ne mun na communiquer maanaam mun na waxtaan ak beneen moroomu objet euh, mun na jàpp ne loolu mooy connecté donc objet connecté mun nañ wax ne bépp euh, objet bu nit defar la boo xam ne mën na échanger euh, ay ak beneen appareil su ma jëlee exemple kaawu télé télé mun nañ wax ne objet connecté la parce que sa kër fi ngay toog dangaa yor télé bi dafa am benn antenne bu mu relier wul donc antenne boobu noonu moom mooy jot données yi maanaam mooy jot image bi vidéo yi li ñuy jàllale tere moo koy jot mais am na keneen ku nekk fu sori euh, koo xam ne kooku koy envoyé donc si air bi lay jaar si ngelaw li lay jaar ba egg si si sa télé nga mun ko jot donc télé mun nañ jàpp ne objet connecté la parce que objet la parce que télé nit ko defar te connecté ne mi ngi waxtaan ak station mère mi ngi waxtaan ak ki nga xam ne moo koy envoyé koo xam ne newul si wetam donc euh, tale mën nañ jël exemple objet connecté parents ñi nekk informatique tamit seen souris yi ñuy utiliser sans fil yi euh, mu nekk conservé par objet connecté parce que da ngay branché benn clé si ordinateur bi nga dem mun nga dem ba ay cinq mètres di mën a bouger souris bi te ordinateur bi da koy gis donc loolu mooy mun nañ ko conservé par objet donc objet connecté mën nañ jàpp ne mhm. bépp euh, jumtukaay wala bépp bagage bi nga xam ne nit ko defar mm. te bagage boobu mën na waxtaan ak mm. beneen moroomu bagage am soit mu jege ko mu sori ko mën nañ jàpp ne loolu objet connecté bi nga jox nii surtout ak yi nag c'est parce que dafay tax nit ñi euh, gën a a comprendre li ñuy wax lan la parce que comme ni ñu koy waxee rek moom mooy tax nit ñi gën a mën a am benn vision bu gën a claire euh, gën a ràññee li ñuy wax lan la voilà donc du coup alors ginnaaw bi ñu waxee lan mooy objet connecté alors man li ma bëggoon laajtewaat encore mooy lan mooy internet des objets. bi nga ne euh, objet connecté après da nga ne internet des objets connectés maanaam. da mhm. yokk internet si objet connecté. ok dañ ci yokk internet ci internet. si mhm. station voilà dañ si yokk internet bu ñu doon teg ci internet si explication mën nañu wax ne nag mhm. euh, benn euh, du ma wax bërëb mais. Eh, internet benn espace la bu nga xam ne monde bi ñë ñi ngi si biir te ñi ngi échangeante ay données donc mën nañ jàpp ne loolu mooy internet c'est-à-dire man mi nekk Sénégal mun naa wax ak ki nekk Chine mun na wax ak ki nekk Angleterre mun naa wax ak ki nekk euh, te sans ñun ma dem ba foofu mais à distance via ay xarala mun nañ waxtaan donc internet mun nañ jàpp ne benn réseau mondial la boo xam ne dafay boole ay mhm. machines. ok donc bu ñu nee internet des objets ça veut dire que suñu objets yi léegi dugg nañu réseau boobu noonu am dugg nañu ci euh, monde objet euh, euh, kii ni internet bi. ok parce que su ma nee objet connecté sànq wax naa ne exemple télé bi ne par exemple mën naa nekk sama kër sta ki may envoyé par exemple chaîne bi di envoyé mun nekk. par exemple euh, mbuur naa nekk mbuur nekk suñu kër ñu envoyante mais problème bi foofu mooy mag moom rek lay am c'est-à-dire euh, keneen ku bokkul si ñun ñaar li ñuy échanger mënu koo am te bu dee internet nag euh, fépp foo nekk si àdduna fépp foo nekk si àdduna bi objet bi di nga mën a échanger ak moom par sama kaawu télé télé bi moom su may seetaan par benn chaîne locale fii Sénégal su ma demee France Euh, maanaam bu dee antenne laa utilisé mënu ma ko fa am à part ay décodeur mais su ma su ma su ma jël exemple mooy antenne simple bi rek. ok sans décodeur pour pour am si dëkk. mais su ma nekkee foofu maanaam jënd naa si limite bi bu gën a simple su ma jëlee rajo maanaam poste rajo poste rajo yi dafa am fréquence fréquence bi si benn zone la am maanaam ñu ne par exemple fréquence bi pour Dakar ak moom donc bu ma génnee Dakar du ma ko jot donc sama objet bi connecté na mais connecté wu à internet ma génnee zone bi fréquence rajo boobu mën a yem rek du ma ko jotati léegi bu ñu nee internet bu ñu waxee internet si objet bi même bu ma demoon ba Chine danaa mën a jot information bi nga xam ne moom la ñuy émettre Dakar parce que fi muy jaar internet lay pour mën a egg foofu noonu donc internet objet bi mën nañ jàpp ne suñu objet yi léegi lañ dugal si biir internet comme ça ñoom ñu mën a waxtaan si biir ñun tamit ñu mën a waxtaan ak ñoom. ok donc mun naa ci ñun internet bi ñu utiliser suñu téléphone yi di mun a chatter di mun a dugg WhatsApp TikTok di mun a échangé ak nit ñi ci à travers le monde léegi ci biir milieu boobu lañ dugal. objet yi fexe ba nga xamante ni objet yi nekk suñu biir kër yi wala muy nekk wala l'allié comme ni ko waxee ci introduction bi ñëpp mun a connecté euh, ak nit ñi di di sûrement di euh, voilà di émettre ay données wala di def di communiquer ak ñun quoi je pense. communiquer waaw ok alors je pense que loolu euh, définition définition boobu am na solo trop bu ñu dugg ci biir nag euh, dinañ gën a xam exactement lan lay jëriñ ak yu demee noonu donc loolu sax moom may amee ni ma laaj la benn question c'est-à-dire euh, ban njëriñ moo am ban njëriñ moo am ci objet yi nga xamante ni moo ñu wër ñu connecté leen ñu connecté leen ñoom ci seen biir ba pare ba noppi connecté leen sur internet comme ni nga ko waxee léegi parce que da nga ñàkk joxe définition objet connecté mooy ñu connecté objet seen biir bu ñu leen connecté seen biir ba pare ñu nekk encore une fois ci biir internet alors loolu yëpp ban njëriñ la am ci pour pour nit ñi ak ban njëriñ la am pour société bi quoi d'une manière générale. waaw njëriñ yi bëri na mais mu nekk ko tënk ci ñett ñett yu gën a fës euh, premier bi mooy euh, gën defar suñu suñu dundin c'est-à-dire améliorer suñu condition de vie maanaam euh, tax ñu ñu ñu ñu ñu ñu gën a épanouir bañ a gën sonn lu bari Euh, mun naa jox exemple par exemple chaque euh, booy tëdd si sa néeg ngay def da ngay da ngay euh, jug fay lampe bi boo jugee fay lampe bi après nga dem tëdd donc internet des heures bi mun na laa permettre par exemple nga tëdd si sa lal fay lampe bi te doo jug donc mu ne bon xeetu tayal la ok mun naa jox exemple si meilleure condition de vie ah mais c'est bien mais c'est bien parce que bu fekkee ne imagine toi bu fekkee ne màgget la màgget boo xamante ni mënul jóg a chaque fois di day c'est pénible pour mu jóg su amee dispositif bu koy permettre mu fay lampe bi te du jóg ah ça c'est cool sa ça c'est mag mm-hmm. bi dalay ñaanal sax quoi dalay ñaanal waaw exemple ça dépend si ni ñu koy xoolee ok <laughs> peut-être mën maa ko xoolee peut-être effectivement mën naa mobilité bi euh, wala mag ñi mën na leen dimbali ñu ñu ñu mën a di contrôler euh, mel ni seen loxo moo nekk si lampe bi à distance Euh, ma jël exemple si beneen confort si beneen yombalal ni ñuy dundee si frigo par exemple euh, frigo bu am internet des objets mun na laa wax li nekk si biir frigo bi comme ça bu kenn par exemple boo fa defoon euh, tàndarma si weeru koor ji tàndarma bi jeex frigo mun na laa wax ah sa tàndarma bi jeex na donc di nga mën a waayal après pour dem jëndi tàndarma donc mën nañu wax ne premier cas de figure bi mooy mooy mu faciliter ñun ñun ni ñuy dundee faciliter ni ñuy dundee après deuxième cas bi mën wax kaaw domaine industrie mhm. euh, donc foofu noonu mën na jàppale ñi nekk si milieu industrie bi euh, maanaam ñu ñu ni seen décision mu faciliter leen ko donc euh, comme objet yi dañuy indi ay données yu bëri mhm. objet yooyu mën na leen permettre ñu def prise de décision bu baax bi gën a baax prise de mën naa wax parce que dès à un moment donné yooyu peut-être mu kii soit par expérience wala day tànn sa kii yooyu noonu lay trouver mais ak données yu bëri mun naa faciliter industrie euh, que li muy defar mu mu mu mën see am lu lu lu gën. donc ak sécurité tamit par exemple euh, su ma jëlee exemple ligne haute tension yi. Mhm. Euh, mën nañ utiliser ay objet connecté pour pour pour xool ndax est-ce que lignes yi ñu ngi baax la ñuy yónnee ay nit foofu ñu fay dem. peut-être budget yi dina metti ñu jël plus ay hélicoptère la ñu jël wala dañuy yéeg ay machines. Euh, yooyu mu nekk simplifié xam ne bu ñu installé euh, benn objet connecté si ligne bi mën naa wax ndax ligne bi fil bi daggul wala ligne bi euh, amul amul problème donc dernier cas de fil bi mu ma mën a wax si lu tax ñuy ajouter internet si objet yi c'est pour am xaalis parce que léegi gis nañ ne monde bi fi mu toll nii avant internet pétrole la moo doon ko pétrole yaa doon dominer monde bi waaye gis nañ ne léegi pétrole yaa dëpp dugg si numérique bi ñoo wax kaay numérique mooy suñuy données maanaam suñuy suñuy li ñu moom si numérique bi donc données yooyu noonu dafa dem ba léegi dafa nekk euh, pétrole bu bees boo xam ne képp ku yor données mhm. euh, rek mu on peut dire que ne mën nga contrôler àdduna bi parce que données yi si la lépp di jaar donc objet connecté yooyu ñoom seen njëriñ benn njariñ bu gën a mag bu mooy jël ay données am jël xool euh, done bi ndax nu mu munti doon mais ñoom daal li ñuy jël après dañ xool yéen données li ñu jël mais bu ñu jëlee Euh, mën na nekk lu ne mën na nekk euh, yow sa sa sant euh, ban xeet nga bokk sa diina lan la mhm. ban âge nga am wala wala fi nga nekk température bi lan donc yooyu da koy jël te bu ko jëlee après industrie bi bi koy bi koy bi ko moom bi ko jël si yow mën naa def lu ko neex soit mën na koo jaay wala mën na produire ay ay ay ay produits yoo xam ne yow la adapté donc moom mooy troisième volet bi nga xam ne pour am xaalis la donc mun nañ jàpp ne ñett yi mooy benn bi pour sa condition de vie nga gën a nekk si jàmm gën a euh, gën nekk à l'aise euh, après côté industrie bi sur sécurité industrie sur euh, prise de décision yi pour améliorer par exemple seen production yi ndax dernier point bi mën nañu wax ne mooy pour pour am xaalis donc ñett yooyu daal gis mooy mhm. tax ñu ñu ajouté internet si ok ok alors ça c'est ça c'est hyper intéressant euh, parce que déjà euh, wax nga tamit sax problème de sécurité c'est-à-dire euh, ñu ñuy yónni ci par exemple ci haute tension yi pour ñuy saytu ak demee noonu même industrie yi sax je pense je pense que bi may préparer épisode bi am na fu ma liir ñuy wax ne ci industrie yi sax mën na leen permettre ñu mun a xool seen machine yu mag yi ñuy utiliser tu vois est-ce que voilà machine yi ñu ngi nekk ci bon état wala déet pour mën a prédire yàqu bi sa benn industrie di def ay euh, production nga jékki-jékki xëy benn jour rek machine bi ne këpp yàqu production bi arrêté c'est problématique donc du coup euh, avec internet des objets je pense war nañ mën a euh, mun a mën a mën a prévenir affaire yëpp donc c'est hyper intéressant alors léegi damay dugg ci beneen euh, ci beneen volet bu gën a bu gën a xóot je pense tu waa mooy wax affaire technique bi cest di dire technologie bi alors bëggoon naa xam bu baax a baax yan teg yan technologie maanaam yan jumtukaay la ñu boolante ba tax ñu mën a wax internet de objets cest à damay gis ñuy wax ay affaire capteur ñuy wax transmission bi wax yan jumtu yan technologie lañ boolante ba tax ñu mën a wax déjà internet des objets. waaw internet des objets bu ñu nañ ko euh, mën nañ ko xaar ci ñetti pàcc. Euh, ñeenti plutôt. Ah. mën nañ ko xaar ci ñeenti pàcc donc première partie wax ne mooy fii électronique bi ne. c'est-à-dire fii capteur bi actionneur bi fi ñu nekk ak microcontrôleur bi microcontrôleur bi c'est-à-dire foofu noonu la ñuy demee jëlee jëlee jëlee données yi su ma fa jëlee exemple euh, par exemple frigo ñu bëgg xam température frigo li ñuy def mooy fo ñu utiliser capteur capteur moom lan mooy lan mooy moom day jël benn phénomène physique c'est-à-dire benn xew-xew bu am naturellement da koy jël mu convertir ko en courant. parce que euh, électronique bi moom courant rek la mën a traiter. exactement donc euh, su ma jëlee exemple température capteur température moom li muy def moom phénomène physique wu température bi moom lay relever bu ko relever nag mu transformer ko en signal électrique pour que après microcontrôleur mun koo euh, lire ne ah lii de par exemple vingt quatre degré la wala lii par exemple dix degré la beneen exemple. capteur bi nga xam ne euh, day détecté mouvement nit capteur boobu moom li muy def moom phénomène tamit déplacement bi lay lay di capté mu transformé ko après ñu am après ñu wax ay actionneur actionneur moom contraire u capteur la c'est-à-dire capteur que moom da doon jël euh, benn benn xew-xew mu def ko en courant actionneur bi inversé bi lay moom day jël courant mu def ko benn xew-xew su ma jëlee exemple euh, ventilateur ventilateur moom courant lay jël mu a créer ngelaw ok su ma jëlee par exemple réchaud faral di tàngalee moom tamit courant lay jël pour mën a créer chaleur donc loolu mooy capteurs yi ak actionneurs yi mais capteurs yi actionneurs yi ñoom dañuy leen di accompagner ak benn genre mën nañu wax benn servo bu ndaw a ndaw bu servo bu mag mais cerveau bu ndaw la xel bu ndaw la bu nga xam ne moom mooy jël information yi mu mun ko traiter ba après mu mun koo envoyer donc ñu am première partie boobu mooy partie capteur bi ak parti actionneur yi léegi partie léegi nag comme am nañ suñu données yi mhm. il faut que ñu envoyer mais bu ñu koy envoyé internet moom dafa am protocole bu muy respecté. ok si bu ma tee si détail mooy protocole TCP/IP donc protocole boobu la internet di doxee bu dul protocole boobu noonu du mën a comprendre euh, bi li muy wax donc il faut que ñu am li nga xam ne mooy convertir données yi jóge si capteurs yi ak sonneurs yi pour mun ko dugal si internet mooy deuxième partie bi mooy partie passerelle bi donc passerelle moom lan la jëriñ day jël euh, données yi nga xam ne. moom la jël jóge moo jóge si capteurs yi mu convertir ko pour que mu mën a xaj si internet pour que mu mën a jàll si internet donc moom loolu mooy passerelle moom day def relation bi entre équipement électronique bi ak internet. ok donc loolu mooy deuxième partie bi. Mhm. troisième partie bi ñu am partie cloud bi. partie cloud bi foofu si ay serveurs ñoo fa ne donc ay machines la yoo xam ne bu données excès moom li ñuy def moom day jël données mu traité leen donc day day day day jël données mu traité leen ba pare mu mu denc leen. si ay base de données donc ay ay ay ay fichiers yoo xam ne dañ fay denc rek dañ moom nag moom di partie cloud boobu dafay denc ba pare jël données yooyu noonu mixé leen traité leen en fonction algorithme bii bii bii société bi teg wala bii ni ki koy defar teg mhm, mhm. pour que mu mën si génnee information c'est-à-dire moom données yi day ñëw données brutes la données yi xam ne kenn ko mën ay chiffres le plus souvent lay doon ak yooyu donc après nag bu excès bi algorithme yi dañ koy mixé mixé jaxase si génnee information bu nga xam ne mooy tax nit ki après si dernière partie bi mooy partie application bi foofu noonu par si sa téléphone wala sa ordinateur nga mën a def prise de décision par nga gis ne ah euh, frigo bi de sedd na ba ëpp nga ne xaar ma fay ko nga nga demandé interface bi. Mhm. fayal la ko donc mu ngi wax quatre parties moo regroupé avec yi mooy partie électronique bi device bi bi am capteur actionnaire yi. partie internet bi bi nga xam ne moom mooy jël données yi yónni ko si pas si si internet nga passerelle partie cloud bi nga xam ne foofu la ngi defee stockage bi ak traitement bi ak dernière partie bi mooy partie application bi donc technologie yi ñuy faral di utiliser si si si si si partie yëpp donc bu dee partie électronique bi le puissance foofu naa ko ay capteurs ay actionneurs ak ay microcontrôleurs la ñuy utiliser donc ñoom ay éléments électroniques la donc après côté langage de programmation dinañ fa am ay C ay C plus plus ay Python ak ay RTOS real time operating system donc yooyu moom partie électronique parce que yooyu lañ fay faral di gis comme ay ay ay ay technologie ay technologie donc bu dee partie passerelle bi foofu le plus souvent ay ay ay ordinateur la ñu wala ay micro ordinateur donc foofu euh, le plus souvent ay système d'exploitation lañ fay lañ fay la ñuy def si biir ordinateur bi carrément comme ay Linux wala ay ay Windows OS après nag mën nañ utiliser ay tamit ay langage de programme presque yëpp compatible na parce que système d'exploitation la mais mën nañ utiliser Python wala C++ wala Java euh, wala yeneen langage yi pour pour partie passerelle boobu noonu. après partie cloud bi le plus souvent li ñuy def mooy actuellement dañuy utiliser ay services en ligne comme ay euh, Amazon Web Services ay Microsoft Azure ay IBM Cloud donc foofu lañ ñooñu la ñu préférer utiliser pourquoi parce que. Euh, pour nga déployer sa propre serveur dina xaw a da dina laaj maanaam di nga soxla courant di nga fay internet mhm. di nga def maintenance ak yooyu mhm. donc cloud bi moom chaque mois da fay tuuti rek la nga xam ne après ñoom ñoo la koy gérer ñoo lay gérer presque bi gérer le courant bi yow doo yow fay doo gérer yooyu yëpp donc soo doonee après yow li ngay def mooy installé sa say service léegi nag bu la neexee tamit partie cloud boobu nga defar ko sa bopp la neexee nga décidé nga ne damay bi arrêté loolu bu neexee nga def ko mais buy gën a woyof partie cloud bi moom moo gën a woyof. après partie application bi tamit. Mhm. waaw partie application bi tamit comme parce que application ak cloud presque ñoom ñooy euh, parce que application bi tamit ci cloud bi nga koy dencee donc presque sorewul euh, le plus souvent tamit euh, mën nga utiliser ce que ma wax comme ay IBM web service wala ay services yooyu gis nga pare comme ay Sync Speed ay ay Euh, ay MQTT wala bu la neexee tamit nga utiliser langage programmation web yi de euh, mooy HTML CSS JavaScript nga développé sa propre site sa wala sa propre application from scratch donc lii mooy presque technologie yi ñuy faral di gis si quatre branches yu domaine IoT. IoT bi donc quatre branches yi moom capteur actionneur la. Mhm. après passerelle bi. Mhm. après cloud après application. donc étape yi boo ko toppee rek. Mhm. mën nga am sa objet sa sa sa objet connecté. ok ok alors je pense que li nga expliqué noonu yëpp c'est hyper intéressant Euh, te am na euh, man benn gis-gis bu ma ci am cest a dire alors ni ma ko bëggoon a tamit essayer xool ndax comprendre naa déjà li nga wax bu baax c'est-à-dire li ma bëggoon a xam mooy euh, dafa am partie boo xamante ni électronique la c'est-à-dire mooy dafa am ci objet bi ci par exemple comme joxe nga exemple frigo bi dañoo jël ay affaires yu bari mooñaale ko ko mu nekk ci biiram muy électronique la je pense tu vois tey su fekkoon ne benn benn. benn benn euh, ma joxe benn exemple à la con comme ça c'est-à-dire ñu am benn dàll connecté tu vois c'est-à-dire ci dàll boobu noonu électroniquement moo ñaalee nañ ko ay éléments ay yu bëri c'est-à-dire ay capteurs ay ay ay ay ay ay ay connecteurs je sais pas pour connexion bi tu vois euh, voilà ak affaire yu bëri quoi c'est-à-dire bu ñu ko mooñaalee loolu yëpp nag mooy permettre dispositif boobu noonu mu pare pour mun a interagir ak internet bi interagir aussi ak yeneen <clears throat> ak yeneen objets yi n'est-ce effectivement voilà. Ah, alors donc loolu c'est important je pense que ñu xam ko déjà que ne dañuy moñaale loolu yëpp alors mais man damay dégg aussi ñuy wax euh, ci biir euh, technologie yooyu noonu ñuy utiliser voilà ñuy wax affaire de euh, NFC RFID ak genre demee noonu tu vois loolu lan la signifier exactement ci biir objet connecté yi. waaw biir objet connecté yi. Hmm. bu loolu parce que loolu tamit ci partie électronique bi la bokk. ah ci électronique bi la bokk ci partie électronique bi dañu naan. Hmm. waaw ci électronique dañu communication c'est-à-dire objet connecté yi ñoom seen biir am nañ seen propre technologie de communication bi nga xam ne wuute na ak bu internet donc su ma jëlee par exemple technologie NFC wala RFID par exemple moom la ñu utiliser ci péage yi ci autoroute à yi euh, mooy rapide carte rapido yooyu donc carte bi lay jox dafa am benn euh, carte bi dafa am ci biir hmm. euh, technologie NF NFC bi. ok donc technologie NFC dafa am seen benn numéro bu ci bu ñu ci enregistré. donc yow boo ñëwee ba si suufu porte bi daam am antenne bu nekk bu lay tiim antenne boobu noonu day émettre ay ay ondes yoo xam ne carte bi day alimenté wu ba pare renvoyé ko numéro carte bi donc bu ko renvoyé numéro carte bi ñoom après si seen partie base de dañuy xool ndax ki est-ce que mi ngi ci biir base wala est-ce que am na crédit donc boo amee crédit bi ñu mhm. système bi wax porte bi euh, kii bi barrière bi nekk mu mën a ubbeeku pour que nga mën a jàll donc Euh, NFC bi technologie de communication la entre sa carte bi nga yor antenne bi après am nañ yeneen technologie Bluetooth Bluetooth tamit technologie de communication la euh, am nañ tamit euh, LoRa donc LoRa tamit presque IoT moom la ñuy gën a utiliser parce que di nga mën a envoyer ay données si ay distance yu gudd par exemple bu dee da ngaa nekk si si ci ci ci capitale bi si ville bi mën nga envoyé ay données entre ba ba cinq kilomètres par contre boo demee si région yi. di nga mën a envoyer ay données ba ay quinze kilomètres euh, te te doo si am problème euh, donc après di am ay technologie euh, ay Zigbee mhm. ay ay ay technologie comme mhm. Wi-Fi aussi je mange Wi-Fi Wi-Fi voilà fi di nga am Wi-Fi donc yooyu yëpp ay ay technologie de communication la donc mais ñoom ñëpp dañu am en fait seeni inconvénients ak seeni seeni comment dire avantage par exemple ok vas-y waay mhm. waaw maanaam par exemple euh, wifi wifi mun na envoyer données yu bëri en même temps consommer euh, dafay consommer côté courant dafay consommer lu bëri. exactement moom boo bëggee envoyer données yu diis. Mhm. boo bëggee envoyer données yu diis wifi moom mun na nga ko mën nga ko def mu envoyer données yu diis gaaw gaaw gaaw mais dafay consommer en courant te par exemple bu loraa moom mën na envoyer te tamit wifi Euh, portée bi maanaam bëriwul noonu parce que ay boo bee utiliser ay antenne amplificateur presque entre euh, cent ba un kilomètre rek nga mën a utiliser par wifi par contre bu leen lora moom mën la wax naa la mën naa dem ba quinze kilomètres waaye moom li muy envoyé du bëri moom tuuti tuuti données yi maanaam tuuti tuuti tuuti la mën a envoyé si distance bu gudd te moom du consommer énergie parce que le puissant bu ñuy def mhm. des objets mhm. euh, partie autonomie partie autonomie c'est très important parce que le son objet yi euh, dañuy autonome ça dañu am seen batterie bopp bu ñu embarqué donc euh, di sonal nit ki muy sànni batterie bi tout le temps tout le temps tout le euh, day metti moo tax ñu am ay technologie yoo xam ne ñoom duñ consommer batterie bu bëri mais seen beneen problème mooy données yi ñu envoyé tamit du diis moo tax presque application IoT dafa am technologie bu appropriée. Mhm. par exemple bu dee ay technologie ay bu dee pour vidéo surveillance kooku doo utiliser LoRa doo utiliser Bluetooth Wi-Fi ngay utiliser parce que moom mën a envoyer ay vidéo flux vidéo yi diis mais par exemple bu dee ay technologie par exemple pour relever juste ay température yu ndaw wala ay unité yu ndaw yooyu mën nga utiliser yeneen technologie comme ay Zigbee wala Bluetooth wala LoRa. ok ok. alors donc donc sa euh, ça dépend ci soxla bi nga am ak di ko def cest di soxla bi mooy euh, mooy mooy mooy mooy diriger technologie bi nga xamante ni moom nga war a moom nga war a utiliser pour transmission de données bi. donc loolu c'est si c'est effectivement doo tëb tëb rek hyper intéressant alors léegi man su ma amee par exemple sama benn kër tu vois ma am sama objet ñu connecté tu vois voilà ma am télé euh, euh, comment dirais-je euh, voilà sama buntu bi wala il est connecté voilà waxe daf lay wax nag de bu ma juumee rek corrigé ma parce que man man bees laa ci affaire bi voilà tu <laughs> donc ma am sama voilà ma am sama montre connecté am sama lépp connecté alors léegi damay dégg ñuy wax souvent. Euh, plateforme IoT alors lan mooy plateforme IoT parce que je pense que plateforme IoT xaw ma voilà dafay connecter ay données ak naka mais lan lan lan mooy définition plateforme IoT ci boppam parce que dama koy gis souvent euh, ci documentation yi quoi. ok plateforme IoT mën nañ considérer ne benn service la bu nga xam ne. Mhm. ci biir service bi dañuy collecter données dañuy denc données yi après euh, ñu def analyse sur données pour mun ko exploiter. donc presque loolu mooy mooy plateforme bi c'est-à-dire dafay regrouper ay euh, sous société bi c'est-à-dire collecte bi bu collecte données yi après mu denc données yi denc données yi mu def si analyse si defee analyse après mu mun koo exploiter donc système na bu nga xam ne maanaam bu dee comme su ma doon waxee sànq si partie cloud bi dama doon wax ne la hmm. euh, dañuy am partie bi ñuy stocké données yi am partie bi ñuy defee traitement ak algorithme yi après ñu dem si partie application pour mun ko afficher ok léegi plateforme IoT moom lépp loolu noonu partie maanaam partie cloud bi ak partie application bi lay regrouper donc bu ko regroupé di nga mën a am bu sa données accès parce que moom du gérer du gérer euh, yow kii yu données maanaam acquisition données du ko gérer maanaam moom réception données lay def maanaam données yi ñëwee mu collecté leen bu leen collecté après mu denc leen fenn si benn base de données bu denc si base de données la après. traitement bi commencé ñu commencé analyser données yi peut-être euh, mën nañu utiliser foofu noonu euh, intelligence artificielle pour mën a def euh, traitement données bu ñu paree nañu exploité ko pour après xool pour mën ko utiliser pour def ay future prédiction wala mën ko utiliser pour jàppale nit ñi jël jël décision donc plateforme it nañ jàpp ne mu ne ensemble d'outils la boo xam ne dañ ko regrouper si benn benn benn application rek Euh, pour que mu mën a faciliter ki koy utiliser léegi mu dem di utiliser application bi pour collecter après application bi pour denc après application bi pour analyser. plateforme bi moom loolu yëpp lay dajale. denc beeg euh, analyse bi yëpp da koy denc def ko def ko benn. donc da lay yombalal yow sa liggéey yow mi di gérer ressources AIT. ressources AIT ok ça c'est hyper intéressant alors am na am na ay point yoo laal léegi nag. Euh, dama ko denc sax pour benn question parce que jot nañoo def ay épisodes yu bari ci yeneen domaine c'est-à-dire lu ci mel ni ci domaine big data lu ci mel ni ci domaine cloud lu ci mel ni ci domaine intelligence artificielle alors question bi nga xamante ni bëgg naa ko poser et ça crée dafay créer benn link avec épisode yooyu yëpp sax tu après ku ci bëgg am information yu gën a large ci yooyu mën nga dem depuis déglu yenn épisodes yi mais question bi ma amoon envie mooy ban lien moo am entre internet des objets big data le cloud ak intelligence artificielle. waaw euh, mën naa wax ni échelle la. échelle hmm. la bi nga xam ne bu si bu si wala chaîne la sax laa chaîne la non hmm. chaîne bi nga xam ne. Hmm. bu si benn manqué rek. Euh, maanaam technologie dina dese am xam. pourquoi parce que internet des objets moom lu lan lay def jël ay données moom point internet des objets jël ay données. big data moom mooy lan mooy données yu bët yi données yu bëri yi ñuy dajale yëpp junni junni ay milliers mooy mooy mooy données mooy données yu bëri yi ba jéggi dayoo comme ni ñu koy waxee. waaw ba jéggi dayoo <laughs> voilà données yu bëri bu jéggi te données mu tax ma ne chaîne la. Uh-huh. parce que données yu bëri bu jéggi dayoo yooyu noonu. Euh, IT da la ko indil donc IT bu la ko indilee mun nañ wax ne big data dootoo amati données yu bëri yu bëri yooyu noonu donc IT da lay indil données yu bëri yi nga dem si big data boo demee si big data am nga données yu bëri nag. mais maintenant foog nga def dara si données yu bëri yooyu. soo def dara nag mun nañ wax ne intelligence artificielle moo lay mën na laa jëriñ pour que nga def nga mën a traiter données yooyu ah intelligence artificielle naa jël données yu bëri yooyu mu traiter ko pour génnee si ay résultats yi nga xam ne dina ko mën a comprendre wala dina si mën a utiliser pour def ay prédiction léegi yooyu noonu yëpp le plus souvent nag si cloud nag léegi si bi lay xewee maanaam si serveur yi nekk si internet fa ñetti di tase fa la ñuy fa la ñi fa la ñuy liggéeyee ñoom ñaar c'est-à-dire Euh, internet des objets bi moom mooy recueillir données yi données wu température données wu sa kii cardiaque sa sa mouvement euh, cardiaque euh, données sa respiration wala données sa température wala données say say say animaux fu ñu nekk ak yooyu moom da koy récupérer mhm. waaye du si def dara da koy récupérer rek jël ko ko bu ko jëlee nag ñu am ay données yu bëri ay données wu milieu wu température yu nit wala ay données wu milieu wu fréquence cardiaque yu nit maintenant données yooyu nag foofu ñu def si dara donc pour ñu def ci dara nag dañuy woo intelligence artificielle intelligence artificielle boobu noonu nag moom mu ko traité ne ah bon man bon ni d'après ni ma jàngatee lii données yi nii lañ mel donc bu période bi ñëwee peut-être euh, animaux yi peut-être wet wet bi la ñuy demee wala bu ñuy ñëwee bu période bi ñëwee ni ñi dañuy jël poids et cetera donc intelligence artificielle mooy permettre nga def traitement boobu noonu. Mm-hmm. pour que même sax dina la permettre boo mm-hmm. amatee. yeneen données mhm. euh, vite fait nga mën a xam balaa événement di am nga mën a xam ne ah waaw bii man de li may prévoir mooy par exemple bu mai jotee euh, junni nit dinañ dinañ dinañ euh, jël poids wala dinañ et cetera donc ñoom am ah, di que chaîne chaîne bi nga xam ne bu si benn manqué rek presque dina dina xaw doy waar dina sooxe quoi première partie bi mooy AIT bi mooy jëlee waaw dina sooxe première partie bi mooy AIT bi mooy jël données yi Euh, données yëpp moo récupéré deuxième bi ñu am données yu bëri si big data donc foofu lañ koy denc après nag ñu war a jàll si utiliser intelligence artificielle pour mun see jëriñoo. ok après cloud bi nag moom moo moo leen ëmb mun nañu wax ñoom ñëpp. c'est-à-dire fa yu bëri. intelligence fa la ñuy nekk. foofu la lépp di xewee quoi ci cloud bi quoi ça c'est sûr. mooy wax ne mooy cin wax ne mooy cin bi. <laughs> sa waa ji dafa mel ni nga xiif. Ah, dafa mel dafa mel ni reeragoo dafa mel ni reeragoo <laughs> alors <laughs> alors je pense que c'est c'est hyper ah, et, je pense que pour résumer loolu yëpp dañuy euh, alors dama am lu mhm. ñëw sama bopp léegi benn scénario boo xamante ni peut-être ni dinañ ko comprendre ak njëriñ bi c'est-à-dire imagine ma jógee sama kër tu vois euh, dañuy wax souvent ne intelligence artificielle euh, demande internet des objets yi ak objets connectés yi par exemple imagine ma jógee sama kër war a dugg ci sama biir kër chaque jour may faire def même action yi cest à su ma duggee taal lampe bi su ma paree dem dugg sama toilette tàngal ndox bi tu vois pour sangu su ma paree jël sama serviette def li jël parfum def lii taal taal def parfumer néeg bi tu vois voilà ainsi de suite donc booy jógee sa liggéey ñëw sa kër bees am na activité yu bëri yooyu def ci sa kër gi alors su fekkee na nga am ay objets connectés yu nekk sa biir kër gi chaque jour boo ñëwee je pense que mën nañ di jàng ci li ngay def sa activité yi ci kër gi di ci jàng di si jàng di si jàng di récupérer données yi di récupérer di sànni di récupérer di sànni ci euh, ci big data yi xaw ma ci cloud bi je sais pas tu vois alors moment dinañ dem mm-hmm. ba comprendre yow say activité ak chaque jour boo ñëwee lay def ba bés dina jot nga dugg ci si kër gi fàttee teg sa clé bi sax fi nga ko war a teg ñu ne la ah, sa clé bi war nga ko teg fële tu vois wala ñu ne la ah fàtte nga taal lampe bi wala ñu ne wala sax mu taalal lampe bi tu vois wala nga dem wala nga dem sa bureau wala tijji wala tijji garage bi voilà à distance nga mën ko commander garage bi tijjeeku nga war a am ay livraison yu war a ñëw ci kër gi fekk yaa ngi bureau fi nga toog sa bureau nga tijjil leen ñoom ñu du bon y a de choses je pense yoo xamante ni euh, yaakaar naa ni avec objet connecté ak internet des objets euh, war nañ ko mën a def donc donc tey je que avec ça dañuy gañe beaucoup plus en voilà en utilité tu vois c'est-à-dire bu fekkee ne objet yi yi nekk autour de ñun ñëpp mën nañoo interagir ak ñun di ñu dimbale je pense que ça c'est hyper intéressant voilà donc euh, Mamadou Mamadou Mamadou am ngeen fi am ngeen fi njëriñ bu baax am ngeen fi njëriñ bu baax a baax a baax alors alors beneen question bi ma bëggoon xam mooy ci yan domaine la ñuy gën a utiliser internet des objets. waaw jamono ji euh, mën naa wax ne presque peut-être dafa yéex ñëw suñuy continent africain mais bu dee yeneen dëkk yi. Mhm. ñoom fexe nañ ba presque lépp.

seen e, seen seen seen seen par exemple ticket e, métro yi seen seen am nañ ay carte Navigo yi nga xam ne carte yooyu presque technologie NFC e, NFC la donc doo ñëw dagg ci ticket dag comme ñun ni ñu daggee fii ticket xëy na da ngay ñëw jàllale ko si barrière bi nga jàll après mu débité ko sa compte donc domaine transport bi évolué na si domaine élevage bi tracking tracking animaux yi Euh, ak xam seen état de santé xam kan la ñu juddu xam fu ñu toll ak yooyu seen màgg yooyu yëpp. Mhm. tamit domaine élevage bi IoT bi mi ngi si domaine industrie bi mi ngi si bu bu baax a baax si entreprise yi pour surveiller seen machines yi surveiller euh, ligne haute tension yi euh, parce que équipement yi on peut dire. Euh, côté équipement euh, euh, industrie ñoom ñu ngi si ay train yi comme même day xaw a laalaat transport maanaam bu dee kaaw train yi ñoom mm-hmm. industrie yi seen raay yi mm-hmm. xam am ay capteurs yi nga xam ne bu raay yi xaw a déformé wu yooyu noonu yëpp dinañ ko gis si seen station domaine santé bi tamit am nañ ko ay équipement yoo xam ne day permettre am sa médecin wala ki lay gérer yooyu yëpp am say état sa sa sa température sa battement que bu dee tamit am nañ ko donc bi gën a gën a fës mooy domotique donc domotique mooy c'est le fait ñu ajouter euh, intelligence wala internet des objets si suñu bâtiment yi c'est-à-dire lampe yu yu connecté ay ay ay euh, euh, chauffe-eau yu connecté télé yu connecté ay yëpp parce que domaine domotique bi moo gën a gën gën a fës mën nañu wax Euh, après tamit am nañ domaine agriculture agriculture intelligente su ma jëlee kaaw tool bi bi nga invité bi bee passé. si si donc moom tamit si domaine IoT lay yëngu. Mhm. donc yii daal ñoo gën a fës. transport bi élevage industrie santé domotique ak agriculture. Mhm. alors ça c'est donc man bon je peux dire que pratiquement ñu ngi ñu ngi fépp tu vois parce que suñu waxee euh, déjà mbirum santé rek santé déjà dafa euh, dafa large nga wax élevage defaat affaire agriculture euh, tool bi maa ngi koy nuyu de passage avec voilà tous les choses yi nga xamante ni moo ngi koy moo ngi koy def tu ak ni nga ko waxee aussi problème domotique bi et tout ça alors su fekkee ne tey internet de objets ak les objets connectés ñu ngi presque partout ci secteur yu gën a gën a gën a bëri. alors man inquiétude bi nga xamante ni dama koy euh, dama koy am mooy ban est-ce que am na sécurité ak aussi euh, bu fekkee ne sécurité bi des na lan lañ mën a def ak fan lañ mën a laal ba nga xamante ni su may def par exemple ma sama projet IoT dina am sécurité. Mhm. waaw euh, xam nga ni moom internet saa boo ko tuddee rek. Mhm. sécurité day teew. Mhm. te xam nañ ne. Euh, sécurité cent pour cent amul euh, si si si si on si àdduna bi amul dara lu am sécurité cent pour cent si si euh, donc problème yi yi njotoon am si ordinateurs yi mooy piratage yi contrôle de prise de décision comment dire prise à distance contrôle machine yi problème yooyu yëpp day ñëwaat si internet internet de jeu te actuellement dafa am benn problème bon mi ngi xaw a mais je peux dire que début yi amoon na véritable tam parce que consulteurs yi lijjanti woon vraiment firnde ñoom li ñu doon def mooy dañu doon defar objet yi rek ko nga dem donc amul woon benn contrôle ci aspect sécurité et truc ba y je des attaques yoo xam ne jot na fi am yoo xam ne ay saay-saayu ordinateur yi les pirates ils ont eu à faire ça. ok et dañoo utiliser objet yi nekkoon sa yenn wàll yi nekkoon ci sécurité yëpp li ñu utiliser pour que ñu dem attaquer ay ay ay services. donc loolu nekk doon problème bu grave léegi après nag am na ay entreprise surtout entreprise côté euh, ñuy créer antivirus yi ñu ngi commencé euh, di di travailler en collaboration ak constructeur objet connecté yooyu noonu pour que au moins ñu mun a résoudre problème mu sécurité yenn failles ñu mun ko ñu mun koo wàññi. mais n'empêche euh, nit ñi ñoom ñoo war a gën a jël seen devant ñoo war a gën a jël seen devant pour mieux protéger seen seen système IT. donc si protection yi noonu li ñu leen faral di di di jox conseil li ñu mën a conseil mooy euh, d' abord euh, internet job bu nga ko waxee dañuy wax internet te bu di par si kër la wala fu mu munti doon di nga am euh, box internet maanaam di nga am li lay jox internet. waaw donc première étape bi mooy box bi lay jox internet bu fexal ba moom sécurité bi si war na si ne maanaam sa box bi daa am wifi bi maanaam si wifi kër wala si wifi entreprise. fexe ba wifi boobu noonu moom mu sécuriser am lépp luy war si protocole euh, WPA et cetera sécurité mot de passe bu fort ak yooyu noonu yëpp nga fexe bu loolu mat mooy première étape bi nga vérifier ndax protocole yi lépp baax na après nga euh, privilégié équipement yi ngay nga privilégié équipement nga xam ne dañuy crypté seeni données yi envoyé. parce que avant le plus souvent données yi envoyé bon xam naa peut-être dañ koy xeeb parce que dañ naan température bi jarul ñu koy crypté idéalement bu ñu mënee crypté données balaa ñu fa envoyé si internet mooy mhm. euh, après tamit valoriser di di faral di. Euh, def mise à jour parce que équipement yi euh, dañuy seen constructeur dañ leen def ay mise à jour ay mise à jour de sécurité bu gisee ay failles. ok donc régulièrement yow boo yoree ay si sa kër wala si sa si sa bërëb da nga war a régulièrement vérifier ndax mise à jour bu bees amul pour que nga mën ko def si sa appareil après nga utiliser ay authentification ay nom d'utilisateur ay mot de passe euh, bu appareil bi toog na utiliser woo ko nga fay ko moo gën. kenn xamul. ok si si nga fay ko mooy gën a nekk sécurité bi gën bi njëkk njëkk njëkk donc nga fay nga fay équipement bu dee utilisé woo ko euh, bu dee am na ay mot tamit régulièrement nga nga koy nga koy changé peut-être chaque six mois nga changé mot de bi ak yooyu noonu bu dee na ko mais dernier sécurité bi daal si nit ki la en fait nit ki parce que parce que faay si nit ki lay jaare donc nit ki moom moo war a jël devant yi gën a prudent si li muy def. pour loolu donc lii daal mën nañu leen conseiller ci domaine sécurité parce que euh, soriwul informatique parce que conseil ñuy joxe sécurité informatique mhm. mën nañ koo joxe tamit ci sécurité euh, internet des objets ok ok ça euh, c'est la même chose hein tu vois il faut que nit ñi gën a bàyyi xel ci ligne yi voilà seen matériel yi et tout ça gën a surtout mot de yi seen box yi nekk ci internet bi ci kër gi ñu koy gën a mën a voilà saytu bu baax a baax mais alors am na beneen jafe-jafe boo surtout booy euh, lire ay articles sur internet sur les internet des objets ak yu demee noonu mooy problème euh, vie privée c'est-à-dire confidentialité des données c'est-à-dire est-ce que tey euh, internet des objets c'est-à-dire suñu amee suñ kër ay constructeurs wala ay entreprises yu mag yu ci mel ni ay Google di defar ay objets connectés def ko suñ kër yi voilà ñu mun di wax ak ñoom certes ñu ñuy fajal ay problèmes et tout ça mais mais est-ce que suñ données privées yëpp duñ mujj nekk sur internet quoi. parce que suñ demee ba téléphone bu njàkk kese rek lañ daan wax ne téléphone yi voilà ñu ngi envoyé sa données privées yi ci ki mais léegi nag su fekkee ne kër gi yëpp connecté lal connecté dàll connecté armoire connecté télé télé connecté euh, lépp connecté mais à la fin suñ données privées yëpp dinañ ko yóbbu alors yow lan nga xalaat ci aspect boobu noonu waaye. waaw aspect boobu noonu euh, je pense que peut que autorité yi xam ne ñooy gérer loolu ñoo si war a Mm-hmm. parce que euh, su ma jëlee exemple Europe ñoom am nañ seen autorité bi nga xam ne moo leen di protéger si loolu c'est-à-dire si seen données yi donc mm-hmm. balaa ngaa utiliser appareil appareil bi dina la wax a ah, man ne damay utiliser tal tal données est-ce que mun nga mu jël ko yow nga ne waaw wala déet peut-être loolu noonu suñu autorité yi maa ngi déglu sa émission ci bi nga doon def ak waa CDP je pense. exactement oui. données euh, personnelles yi. Mm-hmm. waaw donc ñoom je pense que genre ku xëy ñooñu genre ñoom dañ leen war a gën a mën a dëgëral. Mm-hmm. Euh, ba pare comme ni ñu doon wax ñu mën a def coalition parce que euh, GAFAM am nañu doole Google Facebook ñi yor société yu mag yooyu dañu am doole ba peut-être. Mm-hmm. benn état rek du leen mën a faagaagal. mais bu ñu defoon ay consensus yu mag yoo xam ne ci. ñooy ay état yu mag ñooy ñooy seeni loi pas que ñoom ñu imposer parce que fi mu toll nii <clears throat> ñaaraam soit da ngay utiliser seeni objet ba pare nga nangu joxe sa vie privée dootoo am wala nga bañ leen utiliser waaw c'est soit oui ou non parce que dans tous les cas ñoom mën nañu la wax ne non euh, données ci mais boo utiliser tes données ok peut-être nag am na peut-être point point bu bu bu positif parce que dina améliorer par exemple euh, ñoom ni ni ñu lay seen qualité de service dina ko améliorer. Mhm. mais après derrière li ñuy def vraiment si données yooyu noonu munoo wax exactement ni lii la nga am njot mu rafet ne waaw peut-être ñoom pour mu améliorer sama sama de service la. mais après mun na mun na am gis nañ fa entreprise yoo xam ne ay fuite dafa am ay fuite de données dañ doon donc comme ça. ñoom ñoo koy denc yow amoo si vraiment kàddu gu doy donc foofu vraiment côté vie privée moom si si si su côté risque yi risque ayu ci moom manque de vie privée vraiment dina si dina si feeñ trop trop trop parce que ñi ngay dénk say données mënoo wax dëgg-dëgg ne voilà lii la ñuy def ak lii def ak données donc genre autorité yooyu noonu euh, yu mag yi ñu gérer comme suñu données personnelles ñoom ñoo war a trouver ay solution yoo xam ne mooy permettre que entreprise bu mag buy jaay objet connecté euh, données yi au moins mu entreprise bi ñu mën a contrôler xam ne est-ce que teg nañ ko si yoon est-ce que def na nii est-ce que jaar na donc ñoom vraiment ñoom ñooy mën a sauver euh, waaw wala sinon moom ñun ñu bañ koo utiliser bu dee. waaw waaw ku bëggul kii moom nga ba nga jënd ab <laughs> gàncax. parce que defaral te loolu waaw bon beneen coow la mais foofu la sénégal yi war a jëm nag c'est-à-dire foofu la ñu war a jëm ak ak genre profile bu mel ni yow je pense que foofu lañu war a jëm euh, xëcc nit ñi ba nga xamante ni dañuy mën a parce que man li may faral di wax rek mooy mbir pour nga mun ci indi euh, pour nga mun ko mooñ comme nu la neexee foog nga dem ba comprendre mbóot bi ba comprendre lépp essence bi quoi. alors je pense que euh, jeune genre yu mel ni yéen war nañ mën a ñaax nañ nañu éduquer ñu ba faire leen comprendre essence su technologie yooyu noonu ba nga xamante ni dañ koy mën a mooñ à leur façon voilà def ko comme ni mu leen ni mu leen neexee avec sécurité boo xamante ni comme ni ñu ko bëggee lay doon et ainsi de suite alors bi ñuy def léegi bi ngay répondre léegi sax ci question bi euh, comme man déjà bu ñuy wax nii damay xoolaat sur internet di wër tu vois alors j'ai léegi sax benn benn benn décision je pense que ARTP la tu vois sur l'internet des objets cest décision numéro 20 2020 001 sur l'internet des objets tu vois je pense que ça existe tu vois am na ñoom je pense que benn décision bu ñu def alors ñu ngi wax sax sax c'est pour euh, exploitation euh, bande de fréquence yi nga xamante ni ñoo nekk entre 868 ak ba 870 mégahertz tu vois voilà de type machine réseau service voilà mhm. maa ngi gis genre mhm. document yu mel noonu ak benn formulaire à remplir su fekkee dangay ngay utiliser genre technologie yu mel noonu alors je pense que mhm. war nañu mën a jege ji euh, dinaa joxe lien yi sax ci podcast bi comme ça comme intéressé nga leen lire ko tu vois mais war nañ mën a jege. Mhm. lu ci mel ni mhm. ARTP wala lu ci mel ni CDP pour mën a am beaucoup plus d'informations ci législation yi aussi lan la ñuy wax ci objet connecté yi parce que euh, c'est pas normal nga jóg nga jóg nii rek di ko def sans pourtant nga xam euh, ci wàllum droit ak ci wàllum li nga war a def protection données personnelles yi lan moo nekk ci ginnaaw parce que euh, xam-xam moom waruñoo waruñoo xeeb dara je pense quoi voilà et je pense que loolu. waaw loolu dëgg la. ko def mhm. bu ñu demee ci beneen point bi ne rek je que léegi tey ñu jeexal épisode bi parce que euh, muy commencé guddi te xam naa ne yow. waaw ah. toll nii commencé ngaa xiif parce euh, <laughs> dafa mel ni ay bool ay bool laa dégg ñuy yëngatu ci ginnaaw. <laughs> bool <laughs> ah, ah, kon. mun naa am sama gannaaw la de mun naa am ci sama gannaaw la sax de. ah mun na nekk de alors mm-hmm. léegi man li mu bëggoon a xam mooy. yan compétence yan compétence la ñuy soxla pour mun a doxal ay projet ayo ay projet IoT. waaw bu dee domaine IoT bi domaine hmm. bu bu yaatu la. ok domaine bu yaatu te comme lu ma koy faral di waxee domaine la bi nga xam ne benn nit kese kese kese def ko dafay metti parce que day presque impossible wala xanaa yàlla may la mais dina metti vraiment benn nit def ko juste parce que ay ci branche yim dafa bëri. dafa bëri si. Euh, mais mën nga am tout yoo xam ne moo lay permettre nga mën a démarrer. maanaam bu dee domaine yi gën a si IoT am am nga domaine mooy partie électronique moom la ñuy wax système embarqué. ok donc conception système embarqué moom foofu ngay defee conception électronique fa ngay defee design carte électronique bi. fan ngay gérer ban réseau de communication maanaam ban outil mooy comme ni doon sànq RFID ak yooyu noonu fa ngay en fonction cahier des charges bi donc après nga mën a programmer tamit carte électrique kii yooyu noonu carte embarquée microcontrôleur yooyu donc loolu partie domaine c' est pur système embarqué après nga am beneen domaine compétence mooy domaine programmation vraiment pas programmation bu ndaw mais bu xaay nga mën a utiliser langage yi surtout domaine intelligence artificielle yooyu yëpp nga am si big data yooyu nga xaw si am tuuti ak peut mu dernier point bi domaine design parce que bu dee da ngay defar produit di ko il faut que mu rafet donc te du ñëpp aayuñu design mhm. design tamit domaine la bi nga xam ne important si si IT mais mën nañ wax ne par kuy débuter kuy débuter ku bëgg débuter benn par exemple start bu ndawam yooyu noonu euh, mën na débrouiller wu commencement bi mu commencé taxale tuuti donc par exemple bu dee partie bi mën na utiliser ay technologies yoo xam ne am na documentation mais dafa am am ba doyal si YouTube bi si Google mooy technologie Arduino wala Raspberry. Mhm. yooyu ay technologies yoo xam ne da la ko expliquer te di nga ko mën a comprendre parce que di nga ko designer pour que nit même ku jàngul technique sax ku jógee littéraire wala feneen dina mën a utiliser carte yooyu noonu. donc domaine électronique mën nga baam basé aussi carte yooyu muy carte a ak Raspberry dugg si domaine programmation. Python moo fi gën a yomb mun nañ wax ni mhm. nga dugg si Python euh, di nga mën a programmer tuuti euh, boo bëggee ay web nga def tuuti HTML JavaScript yooyu di nga ko mën a utiliser. Euh, sinon boo paree si parti programmation boo duggee si base de données tamit MySQL wala MongoDB boo duggee YouTube day nga expliquer tuuti. peut-être doo si doon expert mais di nga si am tuuti notion bi xam ne moo lay permettre nga teg architecture électronique pour que exactement donc daal boo ko parce que partie design bi après peut-être garaawul ku dee sa prototype mën nga wut keneen ku lay koy wal mais daal boo amee notion yi domaine électronique bi Arduino ak programmation tuuti Python wala langage web waaw MongoDB ak wala par am na logiciel open source Euh, programmation bi ak parti euh, MongoDB ak base de la ko wàññil. Node.js moom kii la boo xam ne. mu tudd nga ne Node développé ci open source. nu mu tudd. O. Mhm. Node mhm. N O D E. Mhm. tiret RED. donc moo ko développé c'est un open bu la neexee nga installé ko sur sa propre serveur yow wala nga utiliser ñoom IBM Cloud. donc outil la bi nga xam ne si programmation visuelle la c'est un peu comme Scratch euh, da ngay xëcc ay blocs linké leen. donc à partir de là di nga mën a même concevoir benn dashboard bu ndaw sans programme HTML CSS juste benn dashboard bi nga xam ne après peut-être programmation fi nga koy fay tuuti mooy partie électronique ngay xaw a pour mën ko envoyer si sa serveur yi mais après non répartitive la nga xam na la simplifier vraiment. Mhm. Euh, nga defar sa sa connecté. ok te après y' a li ma faral di wax tonton Google. waay <laughs> moom ndax la ba fëggee si ñoom. ba fëggee ñu dimbali la. si si wala mën nga yow ay bërëb comme ay euh, bërëb yu Fab Lab comme Fab yi man bi ma nekk mën nga fay ñëw di am na ay nit yoo xam ne ku nekk am nga notion su bëree fay tase. di nga fa mën a ñëw après commencé taxalee def tuuti ba ba mën a defar sa sa premier productif après nag bu dee da ngaa bëgg commencé industrialiser yooyu noonu là il faut que nag nga wut ay personnes yu qualifiées si domaine bu ne. ñu gérer la sa sécurité gérer la sa sa yooyu yëpp. macha allah ça c'est bien ça c'est bien alors comme ni ma koy faral di waxee encore une fois fii dañuy joxe euh, brèche yi cest à dañuy joxe porte yi rek tu vois mais alors kenn ku ci nekk nag yaay ubbi dugg xool lire c'est-à-dire suñu waxee euh, d'une manière générale euh, waxtaan ci objet connecté yi ak internet des objets après na kenn ku ci nekk da ngay jël sa initiative bopp tu vois dem ci plateforme yi pour gën a jàngal jàng affaire parce que fii mënuñ fee jàngale technique bi tu ak lépp lu ci nekk parce que euh, bëggoon naa ñu wax bu baax ci Raspberry Pi yi ak wax ci Arduino yi ak ni ko naka lañ koy defee mais c'est beaucoup plus intéressant soo ko xamee ba pare nga dégg ko ci podcast bi nga dem ci plateforme yu mel ni ay xarala xarala académie yu Ousseynou Diop tu vois wala yeneen gars yi tu nga dem pour gën ko jàng mhm. si naka lay doxe ak exactement mhm. naka lañ def ba utiliser ko wala nga jege communauté yi alors ci noonu lay euh, jaare pour laaj la beneen question boo xamante ni presque mooy nekk ci fin bi mooy naka nga gisee l'internet des jeux fii ci Sénégal est-ce que am na ay start-up yoo xamante ni ñu ngi yëngu ci domaine bi tu vois ak yu demee noonu quoi waaw waaw Sénégal mën naa wax ne bon su ma ko comparé ak sous région bi tane na. Mhm. gën ñu avancé nañ sax avancé nañ. Euh, peut-être par rapport ak PSE dama naan tane na ñu ngi yeewu ndànk-ndànk si objet des objets connectés yeeg yooyu mais war nañ gën a mën a booster war nañ gën a mën a booster am na ay start yu commencé yu fi ne par exemple mu ne comme tool bi macha allah. Euh, après am na am na am na am na yeneen sorte euh, ay ci arrosel arrosel moom tamit ba pare comme principe bu tool bi la. moom tamit ci agriculture intelligente. UGB euh, dañ fay def tamit ay ay ay mouvement am na ay collier bi nga xam ne defar nañ ko foofu pour traquer nag yi donc boo demee par exemple si site Wazirep boo fa seetee UGB da nga seen projet boobu noonu. après gars yi am nañ defar nañ fi ay euh, waa ñu ngi essayé ñu ngi ñu ngi ñu ngi wu daal. ñu commencé initié wu. ok bëriwut mais euh, mhm. euh, mën nañ wax ne am nañ yaakaar daal d'ici quelque temps peut être yee initiative bi dina dina mag dina fort dina dina génn fii Sénégal mais peut être bi ñu mën a am tuuti bi ñu mën a bi leen mën a freiné fii mooy. Mhm. par exemple matériel bi matériel ku def internet des objets xaw na fee métti am wala cher na fi. parce que bu dee bu nee Europe boo yoree wecc di nga mën a jënd vite fait mais fii vraiment il faut que nga xaw a débourser tuuti pour mën a am matériel électronique wala nga yónnee kenn ku nekk France pour mu indil ko. donc matériel bi nekk na problème pour que jeunes yi mën ko koo xam. Hmm. mën koo utiliser plutôt. après tamit côté infrastructure réseau. Euh, amuñu ko par exemple yow boo bëggee déployer sa projet IT yow yaay déployer sa propre infrastructure réseau parce que amul infrastructure bu dédiée bu defar boo xam ne nga ñëw rek connecté wu donc peut-être là aussi xaw nañ si tardé mais je pense que peut-être euh, ay ARTP yooyu ñoom ñoo si war a gën a mën a mën a mën a jàpp. Euh, waaw peut yooyu daal pour yooyu problème la mais à part bon je pense que am naa yaakaar dina dina. marché alors mais est-ce que am na ay communauté internet des objets IoT comme. Euh, ni ko seen ay amee ak yu demee noonu est-ce que am na ay euh, communauté yoo xamante ni ñi nga xamante ni internet des objets ak objets connectés da leen intéressé wala domotique ak électronique yu demee noonu est-ce que am na ay communauté yoo xamante ni wala benn communauté boo xamante ni dañ fay daje pour mën a weccoo seen ay xam-xam ak yu demee noonu euh, am aussi ay matériels yu ñu mën a utiliser foofu noonu yu demee noonu. Mhm. formellement formellement euh, bon peut-être mën naa mais man gisaguma ko maanaam formellement ñu ne communauté bi ah moom de ayiti képp képp lay def. Mhm. gisaguma ko mais am na. Mhm. Euh, par exemple le plus souvent mën naa wax ne ñi koy def xamante presque xamante nañ seen biir. donc dañuy wootante dañuy échanger peut-être ñoom ñoo toogagul def benn communauté. Mhm. mais je sais am na communauté maker communauté boo xam ne bon yemul si ayiti rek ku bëgg bricolage yooyu noonu communauté boobu am na euh, espace comme man bi ma nekk muy Fab Lab Euh, mi ngi commencé yaatu Sénégal Fabla bi donc Fabla bi moom boo fa demee à quatre-vingt-dix pour cent di nga fa fekk matériel pour def IoT. ok donc di nga mën am Fabla par Fabla bi ñu nekk ñoo ngi ñoo ngi Mermoz am na Fabla bu nekk Grand Yoff euh, seen Fabla am na Fabla ESP am nañu Fabla euh, G2 tamit kër ci sax am na Fabla Rufisque je pense que am nañ benn Fabla donc commencé na am bërëb yooyu noonu donc bërëb yooyu bërëb yoo xam ne ñi intéressé technique ñoo fay tase. donc nag à partir de la ngay di nga gis par man suñu faral damay gis nit yu bëri dañuy ñëw ku def ay kii mais amaguñ communauté maanaam dañuy ñëw rek. ok ne man projet bii laa bëgg def après bu ñu ko defee bon peut être ñi ay mémoire la ñuy def ak yooyu noonu. mais vraiment des na am ñu ne communauté formelle bi nga xam ne se am na am na page wala am na ay day def activité régulièrement. Mhm. le plus souvent amu am ko mais nag des fois dina am ay activités yu organisées autour de de l' IT. c' est juste mhm. xam ko on dinañ mën a gis ay communauté yu yu alors je pense que c'est le moment parce que euh, franchement comme ni ñu koy waxee rek il faut que le Sénégal brille il faut que Sénégal euh, voilà il faut que Sénégal tàkk il faut que Sénégal brille ci domaine yépp muy domaine intelligence artificielle muy domaine IoT muy domaine euh, voilà développement ak lépp lépp lépp foog Sénégal brille alors il faut que ñu créer ay communautés yu bëree bëri bëri bëri bëri ba àdduna bi yépp xam ne am na benn potentialité bu nekk fii nii Sénégal am na ay jeunes yoo xamante ni am nañ xarañteef am nañ xam-xam bi am nañ itte bi pour mun a jëmale Sénégal ci kanam ci wàllum technologie alors ñun loolu moo tax ñun ñuy def effort yi ñuy def pour faire connaître à tout le monde que ne xam-xam bi c'est accessible à tout le monde defuñ ko sax en français ñu koy def en wolof pour que ñëpp mun ko dégg pour que kenn ku ci nekk aussi mun ci gis sa bopp xam ne tey man ñi suba mun naa nekk un expert en IoT il suffit tout simplement nga gëm ko mais aussi yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk au devant ci domaine yooyu noonu seen loxo ñi nekk ci suuf ni nga ko waxee jaaxle tu vois voilà nga xamante ni képp ku jaaxle rek da ngay dem foofu noonu pour am toutes les informations pourquoi pas ñu créer benn Silicon Valley boo xamante ni dañuy bolonte ñëpp tu vois. ñëpp benn dëkk boo xamante ni damay dégg ñuy wax ay ville intelligent intelligente affaire de mais alors dañ créer benn ville boo xamante ni start-up bi kese ñoo koy moom ah, tu vois xam naa nag su boobaa pain pain dina fa bëri pain moom dina fa bëri xam naa ne dañ koy def genre campus quoi. <laughs> <laughs> mais je pense que non je te mais je pense que bu ñu ooyee bailleurs yi bailleurs bu ñëwee war nañ mën a investir ñi di joxe lekk ñii di joxe naan mu nekk voilà nga xam ne kenn ku ci nekk comme ni ko maam yi daan defee cest comme ni comme ni ko maam yi daan defee jóg laxasaayu uti xam-xam mais tey man ma mën a jóg laxasaayu dem ci dëkk boobu noonu pour fekk fa sama yeneen morom partager suñu ay xam-xam et je pense que loolu war nañ ko mën a def et mhm. c'est bien bien bien possible franchement C'est possible, c'est vraiment possible. Je pense que peut-être richesse et développement moo ñu Afrique parce que peut-être situation yi moo ñu may vraiment ay espace yoo xam ne nit ñi dañ fa mën a ñëw tase euh, ku nekk génnee sa projet c'est des espaces yoo xam ne dañ ko war a vraiment favoriser favoriser pour que euh, ñu mën parce que macha allah Sénégal moom bu may xool par rapport ak sous-région Afrique de l'Ouest ça va quoi part pays Maghreb ak yooyu moom Sénégal ça va tane yeneen yi te bon a yokk ñu ngi si ñu ngi ñu tamit def tamit ay jéego pour que voilà. Mhm. nit ñi mën a xam nit ñi mën a xam li li xew ko. ok comme ni ko Ousseynou du waxee rek rendez-vous au sommet alors euh, Mamadou lan moo lan lan moo nekk sa conseil bi nga xamante ni bëgg nga ko jox bépp sénégalais surtout jeunes sénégalais yi. waaw sama conseil bi may gën a jox jeunes yi mooy euh, euh, nañu nañu tey. Mhm. jarul yàqamti ko moom ba wuti xam-xam. surtout wuti xam-xam. Mhm. Euh, parce que li may faral di wax. Euh, y a des milliers de problèmes à résoudre fii au Sénégal en effet y a de problèmes yoo xam ne mën nañ ko résoudre donc li manqué rek mooy xam-xam bi wuti xam-xam bi ak tey. pour mën ñëw résoudre ko parce que bu ñu ko résoudre dañ naa toogaat ñeneen ñëw ba ñëw defar ko ñun tamit ñu naa toogaat di kaas mm. je pense que ñun ñoo war a mën a mën a jàng jàng dem internet jàng euh, wàññi caaxaan bu bëri bi koo wax mu ne la non damay wàññi stress wàññi stress ba kañ donc pour man war nañ mën a vraiment nañ stressé nañ maanaam ñun nañ nangu civilisation bi stressé ba dee pour ñeneen ñi mën mën a jëriñu. ça c'est sûr nañ nangu nañ stressé garaaw def dara ñu conseil mi wax mooy. Euh, vraiment euh, jàng nañ jàng nañ jàng te jàng c'est pas juste école c'est pas juste école euh, jàngal si internet jàngal si ay bërëb jàngal si si ci ci foo mën a jàngee utal xam-xam. léegi c'est gratuit boo sëkkatee boo amee internet rek am nga ñëpp dit mën nga am xam-xam donc ñu euh, ba pare essayer essayer am amour si li ñuy def loolu mën a téye allah macha allah alors Mamadou agsi nañ pratiquement ci fin wu épisode bi euh, lan moo nekk sa moo de la fin ak fan la la internet yi aussi internet yi mën na fekk sur euh, sur internet voilà waaw vraiment maa ngi profité di remercier bu baax a baax ci sa émission bi macha allah c'est c'est top yow Ousseynou li ngeen di def c'est wax affaire def affaire yi si wolof c'est c'est c'est am solo la vraiment am solo donc vraiment maa ngi si émission bi di la féliciter di la encourager si voilà évolution bi. donc mën nañ ma rejoindre si si réseau yi ma presque <laughs> maa ngi si ok bu dee Twitter boo fee euh, Diallo MM di nga ma fa gis Facebook Mamadou Diallo après sama blog yi. Euh, blog techno.wordpress.com boo fa demee tamit je partage souvent ay ay ay technologies euh, sur ay ay blogs sur ay technologies. ok maa ngi YouTube aussi blog techno même si xaw naa wàññi activité yi mais voilà. donc mën nañ ma mën nañ ma mën nañ ma maa ngi fàttali aussi que ne sa blog ba blog bu am solo la euh, man mi dugg naa fa fan yi nii bi may préparer épisode bi. Mhm. xool naa fa ay affaires yu ama am solo et je conseille sénégalais yëpp yi nga xamante ni. intéressé wu nañ ci li ngay def yëpp ñu dugg ci blog bi euh, parce que yaa ngi fay partager affaire yu am solo alors muy blog bi muy adresse euh, sa adresse sur euh, Twitter Facebook yëpp dinaa ko def ci description podcast bi comme comme ça képp koo xamante ni soxla na soxla na la jot pour ay questions wala pour liggéey ak yow wala yu demee noonu ñu mun la mun a jot foofu noonu incha allah dinaa ko def ci description bi alors maa ngi lay maa ngi lay remercier man aussi bu baax a baax parce que bi ma la contacter directement da nga ñëw wax ak sénégalais ci sa. ci ci ci ci domaine bi ni maanaam l'internet des objets donc ci loolu maa ngi la ciy remercier bu baax a baax yow tamit macha allah. alors donc kon ñu ngi yemale fii épisode bi euh, di jox euh, télé ñu ngi auditeurs yi beneen euh, ci beneen semaine ci beneen épisode je pense que ne ci semaine yi di ñëw dina am yeneen surprise yu bari yoo xamante ni dinañ ko indi ci ci ci ci podcast bi et je pense que dina leen intéresser donc restez à l'écoute à la semaine prochaine incha allah allez merci beaucoup ciao.